الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي خلق الأرض وشقر لنا فيه الأنهار أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى الشهر الحرام بالشهر القرام والقرمات الخساس وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فيغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه fa in lam yastati fa bi qalbi ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul moom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala waaye képp koo xam ne yàlla jubal na la amul dara loo xam ne mun na la réeral waaye kew képp koo xam ne yàlla seetaan na seetaan na la ci maanu téem ba nga réer waaye amul tamit leneen loo xam ne mun na la jubal ñu ngi seede ne yonent yàlla muhammad yàlla moom moo ko yónni moom mooy ndawam te moom mooy ki nga xamante ne moom mooy yonent bu mujj ginnaaw moom yonent du ñëwaat doomu ndey bokk jullit ñi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu taxoo ragal yàlla te ñu xam ne ci ragal yàlla boobu la ñu mën a amee teranga àdduna ak alaaxira te bu ñu nee ragal yàlla moom mooy nit ki taxaw ci kéemtalaay kàttanam ci santaane yi waaye lépp loo xam ne borom bi tere na ko subhaanahu wa taala ñu daal di koy sori daal di koy moytandiku doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom moo bind asamaan ak suuf moom moo ñu ko xamal moom moo ñu xamal bi mu bindee asamaan ak suuf ba léegi weer yi fukki weer la ak ñaar ci biir fukki weer yooyu ak ñaar mu am ci ñeenti weer yoo xam ne daf ko jël wormaal ko moo tax mu wax xamal ñu ne weer yooyu yàlla wormaal ci biir weer yi yàlla wormaal yàlla daf cee tere li nga xamante ne mooy xeex daf cee araamal li nga xam ne mooy xeex te yàlla bu ne bu ne araamal na mbir nit ki nekk ci mooy mu ngi nekk ci bàkkaar te bu ci deewee du texe yàlla moo araamal ci weer yi nit ki di ci xeex ñeenti weer yi yan weer la bu ci njëkk mooy rajab te moom mooy sax bi gën a sori dafa tàqali kook ñett yi moo tax boroom xam-xam yi ne boobu sax mooy weer bi ñu gën a wormaal waaye ñett yi dafa am ay cause yoo xam ne ñoo nekk ci biir ñu ne amaana loolu moom moo tax sax ñu wormaal ko waaye yàlla moom mooy ki nga xam ne lu ko neex mu def inna allah ala kulli shay'in qadir ginnaaw rajab weer bi ñu nekk nii mooy zulqaada ci weer yàlla wormaal la bokk bu deewee ñu ngi tey ci ñaar fukki fan fii ak juróom-ñeenti fan ñu séntu daal di dugg ci li nga xamante ne moom mooy weeru aj du zulhijja waaye zulhijja bu jeexee at bi day jeex ñu tàmbali at bu bees tàmbali ci muharram ñetti weer yi nu mu toftale weer ñetti weer yooyu yëpp dañ cee tere nit ki xeex lan mooy xigma bi ci borom xam-xam yi boo mel ne boo demee ci ku mel ni ibnu ibnu kasir xikma bi mooy nit ki bu njëkk ba da daan war ci waruwaayam pour dem aj wala mu war ci li nga xamante ne mooy bato wala mu jël ay tànkam boo moytuwul aj bi dem ak ñibbisi yépp dina ko def ci ñetti weer yi moo tax xeex da ciy araam ci jamono boobu noonu ñu def ko li nga xam ne mooy trêve boo xam ne ñiy jullit ak ñi dul jullit ñépp d'accordoon nañ ne weer bii bu ñëwee duñ ci xeex moo tax ñoom luñ doon màndargalee sax ne weer bii duñ ci xeex mooy seen xeej yi ñu doon xeexee da ngay gis ne weñ bi ñuy takk ci kaw bant bi dañ koy tekki teg ko fële séparé ko ak bant bi nga xamante ne fii doo fi am sax temps du jëlaat weñ bi di ko takkaat du lu dem li nga xamante ne mooy xeex kon ñu ngi ci weer yooyu ñu toll li ci gën a am solo mooy nit ki na ci moytu di tooñ rawatina tooñ boppam waaye rawatina tooñ moroomam bu ñu nee tooñ boppam nag mooy yàlla moom duñ ko tooñ nit ki moom lu mu def ci lu ñaaw boppam la ko def lu mu def ci lu baax boppam la ko def alxayru laa yanfau illa li failihi wa charru laa yadurru illa li failihi lu baax du jëriñ lu dul boroom waaye lu bon tam du jëriñ lu dul boroom kon nit ki du tooñ yàlla boppam lay tooñ moo tax yàlla wax ko ci alxuraan ne yéen ñi nga xamante ne yéen a tooñ seen bopp loolu la yàlla utilisé yéen ñi nga xam ne yéen a tooñ seen bopp bu leen naagu bu leen désespéré jéggalu leen te xam ne yàlla moom mooy ki leen di jéggal kon weer yi nit ki na ci moytu tooñ boppam mooy na ci moytu lu ko di def ay bàkkaar rawatina bàkkaar yu mag yi weer yi nit ki na ci moytu di tooñ moroomam ndax yàlla du ànd ak kuy tooñ az-zulmu zulumaatun yawmal qiyaam tooñ ay lëndëm la yawmal qiyaam waaye cin bu naree neex bu baxee xeeñ fii lay tàmbalee ba pare kon nañ ci moytu li ko tooñ bu dul yeneen weer waaye rawatina weer yi ñu nekk doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi dugg ci weer bu màgg te xam naa loolu mooy nekk deuxième xutba bi incha allah muy weer boo xam ne ay fan yu mu jiital moo gën ci bési weeru koor ñun ñëpp jàngoon nañu ne mujjantalu weeru koor gudd yu mujj yi mooy gudd yi gën waaye bëccëg yi gën mooy bëccëg yi nga xam ne moo nekk ci njëlbeenu dul xijja dinañ ko gën a leeral ci biir loolu dañuy profité rek ci li ñu wax ci weer bii muy weer boo xam ne dañ ci tere xeex dañ ci tere tuur deret yàlla wax ñu ci alquran kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah ñett la tegle mu maas ko ak taa tu'minuuna billah ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah mooy maanaam condition lañu tegal foofu condition boo xamante ne du nit ki dafay ne man ci xeetu yont yàlla Muhammad laa bokk da koy judduwaalee déedéet maanaam juddu naa rek bokk naa ci xeetu yont yàlla Muhammad condition bi demeewul noonu condition bi dafa tegu ci ñett yii mooy bu njëkk da ngay digle lu baax di tere lu bon waaye boole ko gëm yàlla ñett yi bu ci nekkul rek mooy nit ki génn na xeet bi te yëg foo gis lu baax doo ko encouragé foo gis lu bon doo ko tere sa gëm mu ngi sooxe génn nga ci xeet bi te yëgu mooy métier bi gën a noble te yàlla moo ñu ko xamal ñun dañuy fëgg suñu dënn ci xeet yonent yàlla Muhammad lañ bokk yàlla lañu dee taxaw leen yéen de yéenay gën di xeet xeet yi fi jaar yépp xeet yonent yàlla Muhammad moo ci gën waaye ci ban condition la gënee mooy digle lu baax tere lu bon waaye gëm yàlla gis ngeen kon degré gëm yàlla foor gi mu foor yàlla yi mu ko masaaleel kon ndekete digle lu baax tere lu bon dëgëreem dafay ànd ak ngëm nit ki bu fekkente ne mënul gis lu baax di ko encourager mënul gis lu bon di ko tere ngëm nekkatul ci moom moo tax yàlla boole ñett yi ni mu ko riimee condition la kon yàlla ñu yàlla xiir ci loolu yàlla wax ñu yoon saa salaam wax ñu ci xadis mu ne man raa minkum képp koo xam ne gis na ci yéen minkum ci ñan mooy ci yéen ñan ñoo moom alquran ñan la yàlla yónni yàlla yónni yonent yàlla Muhammad ci ñoom ñun xeet yonent yàlla Muhammad kon ñun ñooy minkum ñun la yàlla di waxal mu ne képp ci yéen ku gis munkar mooy lu ñaaw ci tënk bu ñu ko mënee firi munkar mooy lu ñaaw lépp loo xam ne gis nga ko te muy lu ñaaw yonent bi nee na na nga ko na nga ko dindi waaye nag si comme si ñun dañoo am ay degré dindi bi dafa am ay façon bu njëkk mu ne na nga ko dindi ak sa loxo du ñëpp ñoo mun loolu du ñëpp ñoo mun dindi ak seen loxo déedéet ñi yàlla jox ay nombal tànk ñooñu ñoo mën a dindi ak seen loxo ku mel ni boroom kër ci biir fameem boroom kër bu gisee lu ñaaw ci biir fameem yonent bi dafa ne na ko dindi ak loxo parce que moom la yàlla jox kilifteef bi chef d'entreprise gouverneur ci fi mu gouverner président de la république ñooñu ñooy dindi ak seen loxo parce que yàlla ñoom la teg loolu seen loxo lu ñu bëgg mu daj mu daj waaye yàlla bu ne boo tëlee loolu nag amoo nombal tànk boobu génnoo ci de ba léegi yaa ngi ci minkum bi mu ne fa bi lisaani na nga wax yàlla nattuwul ñëpp tam ñuy wax am na ñoo xamante ne comme sama genre di nga taxaw di wax nit ñi di la déglu ñooñu bu ñu gisee lu ñaaw dañ koy dindi ak seen làmmiñ waaye yow amoo doole boo dindee amoo làmmiñ boo dindee loolu taxul tam nga génn ci ba léegi amoo échappatoire yàlla mu ne na nga ko naqarlu sa xol lu ñaaw lii ma gis mënuma ko dind ak sama loxo mënuma ko dind ak sama làmmiñ yàlla mu ne naqarlu ko sa biir xol kon lii dimbali nit ki mu bokk ci gën di xeet amul benn bunt boo xam ne tëjal nañ ko ko dañ ko ubbil bunt yépp ñett yi faw nga mun ci benn amoo doole boo dindee amoo làmmiñ boo waxee nga la waaye am nga xol nag xanaa bu am ngëm ndax xol bi moom bu amee ngëm moom day digle lu baax di tere lu bon yaakaar naa lii bu ma ko waxee suñu xel war na daw ndax jamono bi lii xew ci réew mi nekk na loo xam ne lu critique la mu am ci weer yoo xam ne weer yu yàlla araamal tur deret la te ñu ngi gis nit ñi ñu ngi dee te loolu warul benn doomu aadama bu dee te dee ci bànneexu bakken parce que yàlla bakken yi ñu war a rey daf ñu xamal yan bakken la ñu war a rey ñooñu yàlla limal ne ñii dañ leen war a rey bu génnee loolu ku dee dafa mel ne nit ñépp la ñu rey yàlla mu ne man axya naas faka axya naasa jamian wa man qatala naas faka qatala naasa jamian yàlla nee na boo fekkee benn nit xiif di ko bugg a rey nga xam ne bu lekkul dee nga dundal ko mu lekk ba amaat force am yàlla nee na dafa mel ni aadama ba ki ci mujjee juddu nga ko defal waaye boo fekkee doomu aadama taxaw nga rey ko ngir sa bànneexu bakken yàlla tam neen dafa mel ni da nga rey nit da nga rey aadama ba ci ki mujjee judd atte boobu lañ lay atte kon nañu xoolaat suñu bopp ñu ngi reyante su suñu biir te dara waralu ko yonent bi saa salaam waxoon na ne ragal naa samay xeet te daf leen formé woon formé woon ba ñu dëddu àdduna formé woon leen ba nga xamante ne da leen doon jàngal sax ci médd àdduna ndax yonent bi mus na ñëw gis benn mbote boo xamante ne nopp bi daf dafa dagg ndax ñoom ci seen jamono ci arab xar boo amee benn gàkk gàkk rek dootoo amati prix dootoo am valeur ci ñoom mu ñëw gis mbote bi benn bi nopp bi dagg na waaye dee na ba nëpp mu ne kan ci yéen moo am njëg bu mu jëndee mbote bii saxaaba yi ne ko nan la ñu mën a jëndee lii yonent bi saa salaam nga xam ne bu doon dund sax amul amul valeur mu dem ba dee ngay wax nañ ci génnee njëkk mu ne noonu ngeen ñàkkee njëg ci lii ba amatul valeur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii de moo ëpp valeur ci yàlla ka àdduna noonu la yonent bi saa salaam daan formé li nga xam ne mooy saxaabatul kiraam doomu ndey mbokk jullit ñi àdduna du kër dañ fiy jóge bàmmeel bi ñuy wax na sax mooy kër moom buntu kër la waaye du kër kër dëggantaan mooy allaaxira nit ki dugg àjjana wala mu dugg safara te bu fa duggee dootul génn nii dugg àjjana bu ñu duggee àjjana amatul génn ñenn ñenn ñooy dugg safara yàlla génnee leen ci yërmandeem parce que am na loo xamante ne fexe woon nañu ba nekkul woon ci ñoom muy bokkaale doomu ndey mbokk jullit ñi nañu xoolaat suñu bopp yonent bi dafa formé woon sahabatul kiram ba nga xamante ne àdduna tekkilu woon dara ci ñoom jaralu li woon dara seen lépp àllaaxira la woon paa bu ñuy yëkkati di ko teg seen xel mu ngi dem ci paa bii de na ma dugal àjjana loxo bu ñuy yëkkati ñu ngi naan yëkkati bii ma koy yëkkati na ma dugal àjjana seen bët bi xool ba muy xool mu ngi naan xool bii na ma dugal àjjana ñoom foofu lañ tolloon te teewul yonent bi mu ngi doon wax ragal naa ci yéen yàlla ubbil leen àdduna génne leen ay ressources ngeen dem ba àdduna jaral leen ngeen di rayante seen biir di bañante ak a noonante tey dafa mel ni dañoo toll foofu doomu ndeyu mbokk jullit ñi dañ leen dolloowaat xel yi te xam ne mbir yi dafay jeex tey ku gëmul mbir yi day jeex yàlla jëlagu la waaye jël na lu den lu den ak yow lu la jege fan la ko yóbbu ba léegi mënul ñëw pour wax la condition yu mu nekkee kon nit ki war naa tiit ci yan condition lay demee ak yan condition lay nekkee fi mu jëm ba mu jaral ko lu di lu di doomu ndeyu mbokk jullit yàlla ñu yàlla may dégg ak topp yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla nañu yàlla xiir ci li nga xamante ne mooy allaaxira waaye mu defal ñu àdduna nekk lu oyof si suñu kanam comme ni mu ñu ko waxee bal tuxsiruna alxayaata dunya wal axiratu xayrun wa abqa aquli qawli hada wa astaxfirullah li wa lakum lisaal muslimin min kulli zambin fastaxfiruhu innahu gafuru rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر دوم ndey mbokk julit ni ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi koy ñaan mu defal ñu li nga xam ne moom mooy ragal yàlla ñu ngi koy ñaan mu julli tey sëlmal ci suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ñaan mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ba bés pénc doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla dafa waat ci alxuraan ñetti waat te bu ñu nee yàlla waat na ci alxuraan du waat ci lu amul valeur yàlla lépp lu mu waat rek am na valeur bu njëkk mu waat ci wal fajir yàlla dafa waat ci fajir mooy fajar bi ñu xam tey fajar si tënk rek mooy wax bi nga xamante ne moom la ñu yonent bi saa salaam wax nit ki bu fekkente ne julli na ñaari rakkay fajar moo gën àdduna ak li ci biir lu mel ni tey àjjuma nit ki jullee suba ci mbooloo moo gënal yàlla lu ne maanaam julli fajar dafa war doomu aadama bi bu ñu nee julli suba mooy ñoom ñaar dañoo toftantelew ñaari rakk yooyu jiital la avant julli suba ñoom ñaar dañoo toftantelew bii booy jàng da ngay gàttal jàng bi muy ñaari rakk fajar bu dee julli suba bi da ngay guddal jàng bi ndax lan moo tax mooy inna quraan al fajri kaana mashhuda alquran bi ngay jàng ci booy julli suba malaaka yi dañ koy fekkee ndax heure boobu heure relève la malaaka yi ñëw di bind say jëf doomu aadama bi saa bu xëyee am na malaaka yuy ànd ak moom yii ci kanamam la ñuy nekk yi nekk ci ginnaaw ginnaawam waaye ñaar yi nekk ci ay mbaggam gauche ak droite yi ci kanamam ak ci ginnaawam ñoo koy sàmm bu demoon bay bëgg dugg ci foos nga xam ne dem na bay dugg daal di si échappé wu du jàmbaaram na xam ne gaa yooyu mu àndal la ñaar ñi nekk ci mbaggam mooy raqit ak atid seen tur bind lay firi ay bindkat lañu kii li ñaaw li ngay def moom lay bind kii li baax li ngay def moom lay bind waaye nag mu ànd ak yërmande ci biir kii bind lu baax moom dafa yàkkamti nga def ba mu gaawantu bind te bu koy bind encre indélébile lañ koy wax mooy encre bi nga xam ne boo xasee bind dootul dañ moom boobu lay bindee ci lu baax li nga def waaye du ci yem ci bind ko da koy multiplier fukk wala lu ëpp ginnaaw bi ko yàlla déewee waaye bu dee lu ñaaw la nit ki def nag foofu da koy yéexantal da koy yéexantalu amaana mun naa tuub dina ko dina ko bind waaye crayon la koy bindee crayon xam nañ ne soo ko bindee am na lu koy effacé mooy lan mooy gomme rôle boobu la malaaka bi di joué moom miy bind lu ñaaw li kon yërmande gi ci te benn bu ñaaw boobu donte ak crayon la koy bind sax waaye ci lay yem ci benn boobu lay yem du ko multiplier te mu ngi yaakaar ne bés a ngi ñëw ci biir bési nga tuub ba yàlla effacé ko kañ lay trop tard nag mooy jour bi nga gisee mbooloo bi ñu war a ñëw jël ci sa ruu malaaka yi ñëw di jël ci sa ruu bu ñu ñëwee rek buñ tëj nañu buntu bi nga xam ne mooy buntu tuub mënatoo tuub dellu ginnaaw donte boobu ruu bi génnagul mais gis nga leen ñuy ñëw nga xam ne sew lañ jëm si tey moom c'est fini da ngay dem buntu tuub tëj na ci yow wala bu nit ki dundee ba fekkee àdduna buy jeex nga xam ne jant bi bu waroon xëyee nii fii lay xëyee nga yeewu ba gis jant bi fi muy xëyee nii jàppal ne jour boobu tëj nañu buntu tuub kenn dootul tuub ñu nangu waaye bu dul boobu bu nit ki yeggul foofu bàkkaar bi lu mu rëy rëy rëy rëy inna allaha yaxfiru zunuba jamian yàlla mooy jéggale mboolem bàkkaar yépp kon nañuy tuub balaa muy trop tard malaaka yi ñu leen di wax nag heure boobu la ñuy relevanté te bu ñuy delloo ci borom bi borom bi ñaari laaj rek la leen di laaj démb de demoon ngeen ci waa ji lan ngeen ko fekk muy def tey bi ngeen di ñëw lan ngeen ko bàyyi muy def te ñoom heure bi ñuy ñëw heure jaamu yàlla la te du ñu dem tànk ànduñu ak yow def jaamu yàlla boobu bu ñu ñëwee fekk la ci biir mbooloo bi malaaka bi bu ñëwee yàlla da koy laaj loo ko fekk dem muy def mu ne ko dama ko fekk muy julli bi ñuy dem mu bàyyi la ci biir mbooloo bi yaa ngi julli suba loo ko bàyyi muy def bi ngay ñëw nii maa ngi ko bàyyi mu ngi ci mbooloo bi di julli résultat boobu neexul yoonu saa salam ne yàlla daf koy jéggal mbooleem bàkkaar bu mu def ci intervalle boobu noonu ginnaaw bi mu ko fekkee ak ginnaaw bi mu koy bàyyi waaye imagine toi koo xam ne daf ko ne loo ko fekk muy def mu ne ko maa ngi ko fekk mu ngi ci nelaw yu xóot bi may ñëw itam maa ngi ko bàyyi ci nelaw yu xóot loolu ban signe la kon nañu xoolaat suñu bopp te xam ne fajar lu am ngëneel la moo tax yàlla wàcc wal fajar yàlla wàcc wala yaalin ashr yàlla wàcc fukki fan te mooy yan fukki fan mooy fukki fan zulhijja tey la ñaar fukki fan fii ak juróom fan ak ñeent dinañu séentu bu ñu gisee weer bi rek dañuy dugg ci zulhijja mooy weeru aj boobu nag ngay gis ne aj bi tàmbali na ci ñu dem màkka ñu ciy profité suñu imam Mouhamed Diop yàlla na leen yàlla yóbbu ci jàmm indiwaat leen ci jàmm yàlla nangul leen seen jaamu yàlla doomu nday mbokk jullit ni jamono boobu yow mi am yéene ne da ngay rendi xaru tabaski foofu tere nañ la bul watati sa karaw fépp fu karaw di génn ci yow bu ko watati say wee bu ko daggati ba kañ ba keroog ngay rendi sa xaru tabaski ba pare loolu valable tam ak ki nga xam ne armal na pour aj moom bu armalee rek tere nañ ko yooyu dootul wat ay karawam waaye dootul dagg li nga xam ne moom mooy ay weeram ak nag li sartu aj laaj xëy na loolu du programme bi doomu ndeyu mbokk jullit ni fukki fanu tabaski fukki fan la yoo xam ne nit ki bu ko xamee yàlla wërsëgal ko mu fekkee ko ngallaawaay na góor-góorlu jaamu ci yàlla xeetu jaamu yàlla yoo xam ne dafay extraordinaire ndax fukki fan la yoo xam ne jaam bi du ci def lu gënal yàlla fukki fan yooyu te bu ñu nee jaamu yàlla nag li yàlla gën a bëgg ci jaamu yàlla yi mooy woor yow aji ji woo màkka yaa ngi fii ngallaawaay boo déggee weer bi feeñ nag yéenal nga woor benn fan ñaari fan ba juróom-ñeenteelu fan bi moom mooy. wa shafi wal watri yàlla bi mu giiñee ci wal fajri wala yaari ashr dafa giiñaat ne wa shafi wal watri mu giiñ ci par le père et l'impère Ibn Kasir ne l'impère moom mooy neuvième jour di yawmul arafa boobu ñi nga xam ne ñoo dem aji ñoom duñu woor ñoom ñu ngi taxawaayu arafaat dañuy lekk di naan di tudd yàlla di ko sant mooy neuvième jour zulhijja mooy yawmul arafa wa shafi mooy dixième jour bi te mooy bésu tabaski ñoom ñaar dañu la ñu toftantale woo mooy foo taxawee arafaat rek boo xëyee tabaski la da ngay rendi nii la ko yàlla waatee wal fajri wala yaalin ashri wa shafi wal watri kon yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko yàlla may ñu buñ ko fekkee mu may ñu kattan buñ ci mën a jaamoo yàlla yàlla may ñu buñ ko fekkee lépp loo xam ne mooy xeetu ñaawteef yàlla soril ñu ko ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax ne jamono yi ñu nekk dal la ñu gën a soxla jamono yi ñu nekk dal la ñu gën a soxla mooy dañu toll ci ay jamono yoo xam ne jamonoy trêve la waaye ay jamono jaamu yàlla la kon bu ci kenn di encouragé def lu ñaaw jëluñu nag te mu xutba ci def lu ñaaw waaye gis nañu lu ñaaw li nu mu bëree léegi bi may ñëw benn professeur laa tasel mu am lu ko metti loo xam ne nee na ci ci jamonoom bii la ko metti mooy lu dal ni xam-xam ak nga xam ne yàlla nu mu fonkee xam-xam yàlla bañ na ba ragal yàlla muy garaat bu gën a rëy dafa ne xam-xam ki ragal yàlla la koy la koy yombalal wattaqullaha wa yuallimukumullah xam-xam boobu nu mu rëyee ak ni yàlla fonkee xam-xam fonk boroom xam-xam ñu jël place xam-xam bi nga xam ne mooy bibliothèque mooy nangam ñu taal ko mu tàkk loolu erreur la fekk ay place jàmbur nga di ko taal erreur la donte nag nit ki am na droit mu ñaxtu nit ki am na droit mu ñaxtu waaye na ko ñaxtu pacifiquement waaye na ñaxtu ci anam boo xam ne bu mu yàq bu mu toj bu mu def loo xamante ne day tooñ ñar di loolu du yëfu jullit yoonu saa salaam digaluñu ñuy yàq jullit boo xam ne gëm na yàlla gëm na alaaxira du lor mbokku jullitam du yor lor li nga xamante mooy dëkkandoom te ñun ñëpp ay dëkkandoo lañu parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa xina adaba annar wa salli allahuma wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain qumu ila salatikum yarhamukum allah